Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàttee activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si nekk et maintenant bon visionnage asalaamaaleykum mbokki internet yu Sénégal 4 TV ñu ngi leen di nuyoo di leen jaara di jox kenn ku ci nekk ci yéen sa wàccuwaay amaat mbégte ak contentement dikkaat ak yéen ci seen chronique di jour chronique du jour da ngeen koy am ay bi si nekk ci chaîne bi ngeen tànnal seen bopp di Sénégal 4 TV seen mbokk seen xarit seen soppe seen doomu ndey Assane Dia alias Azou le Pro ngeen ci àndal mbokk yi tey seen chronique du jour dañu dikk rek bëgg a def euh, waxtaan ci ñaari xew-xew yoo xam ni xew na fii ci sunu réew ah, bi ci njëkk di doomi Sénégal bay football ci équipe ba ñu wax Liverpool ah, di international ñu di ko wax gonek Bambali gi di Sadio Mané ah, nga xam ni moom la génn dafa daal benn inauguration ci benn euh, hôpital boo xam ne tabax na ko ca dëkk cosaanam euh, donc incha allahu rabbi daañu ànd def jàngat ci xew-xew ya nga xamante ne nii xew na fa ak itam yenn yi nga xam ne ay détails yu sew la marqué àdduna wargal kàpp te ñu baree baree baree bari bàyyiwuñ ci xel wa ilaa itam buñ ci bàyyi eh, bàyyee xel ñu baree baree baree bari euh, defuñu ci taxaw seetlu tey itam nag muy ay leçon de vie yu mën a amal njariñ doomi aadama beneen ponk bi nga xam ñaareelu ponk waxtaan ci chronique di jour bi daañu wax itam nag ci xew-xewu mbaam di ay nervi yi nga xamante ne ni fi mu toll nii ñu ngi lëmbee réew mi loolee lépp incha allahu rabbi daana ko daal détaillé def ko pàcc par pàcc ci biir li nga xamante ne ni moom moo di seen chronique du jour mbokk yi fi ñuy tàmbalee rek moo dee bi Sadio Mané di inauguré hôpital boobee nekk ca dëkkam mu am fa benn gest boo xamante ne ni daf ko daal di def li may wax ni doy na jàngat ci àdduna moo di lan li ngeen gis ci photo bi di ko xool Sadio Mané dafa ñëw ci inauguration bu ñu toll la fa ci ay autorité liñ leen di duppee ci àdduna kenn ku ci nekk ñëw ak sa melokaan ñëw ak sa sañseeg ñëw ak say tiitër ak say ak say ak say ku nekk ak la nga indi moom mi nga xam ni moo jël alalam ji mu ñaqal boppam ñu mën ko xayma ci trois cent wala lu ko ëpp def ci yëfi mu ñëw sol pantalon jean boo xam ne bu koy xayma njëg li rombul sept mille francs ñu ni déet mu sol benn boo xam ne bu nu koy xayma njëg li rombul ñeenti téeméer di deux mille francs ya mu sol bu nu koy xayma njëg li rombul onze mille francs maanaam lan laa wax foofu mooy li mu sol lépp kaw ba suuf ñëw toog ak simplicité bu nu ko dee xayma lépp lépp lépp matul vingt mille francs mu ñëw toog tribune loge officielle ñi ko wër ñëpp li ñu sol ay centaine de mille lay jar moom mu sol valeur vingt mille francs toog ci seen biir te mbooleem ña nga xam ni ñoom ñoo dog ca jotaay ba la tax ñu ñëw ca jotaay ba mooma dama ni mbooleem ca jotaay ba la tax ñu ñëw ca jotaay ba mooma muy benn leçon boo xam ni ndaw lu ne war na laa yee ndaw lu ne war nga ci jàngat jël ci li exemple bu baax a baax a baax a baax liggéey sa alal di fayeeku ay centaine de million ci weer wi tey nga mënoon a def ni say maroom ni say moroom dawal ay Range Rover dawal ci oto yu bakkane yi bu ko neexoon jënd ci village yu bakkane yi ñuy def documentaire bu ko neexoon dem defi ji jet privé wuti ji jet privé ay moroomam defu ko mu jël alalam investir dëkkam tabaxal leen hôpital ci biir inauguration wu bi ngir wane ak sympathie am ngir wane ak simplicité mu ñëw sol li mu nga xamante ne nii moom la sol ndaw lu nekk lii war na laa yee bravo Sadio bravo Sadio ngeen foog ni ca la yem déedéet bi inauguration bi jeexee ñoo ànd ak moom ba dugg seen biir kër dafa def beneen geste bu bu bu bu bu mata bu wane àdduna gis ko. waaw li tax ma ne dafa mat a wane àdduna gis ko ah, dañu ànd dugg ci biir kër gi mu am fa lu ñuy duppe ak garabu garabook mango mangi garabu mango moo ne ci kër gi mu daw wuti ji garabook mango gi ñëpp naan lu muy def mu dem ba ca suuf for doomu mango bu wadde ci kaw xanaa mango yomb na ko waaye mu dem for doomu mango ci suuf ñu yaakaar ne fa la yam mu dem wut ndox raxas mango bi ba mu set Sadio attaabalewul mango bi de wutul paaka pour dagg mango bi de wutul fourchette pour capp ci seex ci mango bi de daf ko xam pour ni gone wilaas di def mango la ko def devant tout le bi mu foree doomu mango bi ba raxas ko daf ko xamp comme ni xale bu dëkk kaw ga ni ñu koy duppee di xampe mango la doon xampe mango bi di ko déguste quelle vraiment fenomen la boo xamante ne nii moom Sadio Mané ñun ñëpp Sénégal war nañ ko bàkkoo war nañ ko ndamoo war nañ ko tiitaroo waaye nag war nañ di jàng ci moom ah, ba lépp lu ñu am ci àdduna mu bañ ñu yéem ndax nee naa man leçon bi may jànge ci moom moo di kàddu gu ñu ma daan dee ba ma nekkee ndaw dëkk ba nekk mag baat bi door a leer ci samay nopp moo di àdduna bul xeeb te bul yéem moom laa gis ci Sadio Mané loo mënti am ci àdduna lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti na ko jàpp ak sa fukki loxo ak juróom-ñaar mooy bul xeeb bul yéem loo mënte am ci àdduna dis-toi dans ta tête que mën naa am le plus mooy tax du la yéem donc ñu ngi koy wax Jokko Njal jërëjëf merci thank yu very much Sadio ci hôpital boobee nga xamante ne ni indil nga ko askanu Sénégal waaye tamit ci simplicité bi nga xamante ni ni wane nga ko muy ay leçons yoo xam ni kenn ku ci nekk war na ci mën a jàngee vraiment ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax a baax di la ñaanal yàlla sunu borom mu mu mu sàmm la euh, vraiment te aar la beneen bi ci des nag di sama deuxième point dama ko sax bëggoon a jël spécial vidéo mais damay wax ni jaruñu ko à toute sincérité. fan yii yëpp chaque jour que Dieu fait bu ma xëyee prépare ma ci def vidéo euh, finalement damay wax ni jaruñu ko jaruñu ko ndaxte euh, wax dëgg yàlla nag bu ñuy waxtaan ñun dañuy waxtaan ci ñi nga xamante ni nii gontal nañ seeni ndey yi leen xëyal ndax nee naa dañuy faral di wax di lépp ni liggéeyu ndey añu doom ma waaw liggéeyu ndey naam añu doom waaye na fekk doom ca gont de wax na fekk dom ja gont waye seen ndey liggéeyal la sonu ci sa keur bay nga dem ba mag tol ni sa bay na ling ngaral yor sa dole ju say morom yorut ki am am xel and ak nit kuy rotti sam xel di utiliser sa moy li way kat ba di faral di wax nan gis nga xale bu yaroo te yiwu alalu borom barke lay doon nervi yi ay alalu borom yi barke lañ leneen seen ndey liggéeyal ci seen kër baay mooy ngeen ni fuq fuqooral am doole ju ngeen dul jëriñoo doole ju ngeen dul jëriñoo mooy lan mooy dañ leen di fay junni mbaa ñaari junni mbaa ñetti junni jox leen ngir lan ngir ñoom ñi seen ndey liggéey ñu sol seen costume ak seen cravate xoju taxaw ngeen défendre leen aar leen loolu la leen seen ndey liggéeyal yemu leen ca ñu ni leen ñi nga xamante ne nii seenu askan lañu di seeni rakk di seeni mag di seeni jarbaat te dëkk ci réew mi te coono dab leen ñu bëgg a wane ni coono dab na leen ko fi yëngu làpp leen ko am ñu fay la pour nga dóor sa moroomu nawle ñu neexal la neexal la ngir nga toroxal sa rakk ñu neexal la ngir ngay kuntaa ba sa jarbaat finalement je me dis est-ce ni ñuy duppe ay nervi psychologiquement nekk nañ psychologiquement est-ce que nekk nañ ça m'a fait mal vraiment euh, des fois bu ma gisee euh, ñu feeñ ci télé bi wala feeñ ci réseaux sociaux yi ñu wané leen ak seen doole ñuy gëjëg gëjëg yi sol ay verre fii ñàng ñànguru euh, vraiment ça me fait rire des fois ça me fait rire à toute sincérité yor doole jo xamante ni mara day taal utiliser wo sa doole ci dara lu dul ñu neexal la nga toroxal sa

ban doomu politique seen ngeen fi gis tey muy wàcc nekk nervi kan ah ñoom ñoom seeni doom ñoom ñoo ñoom ñoo gën ñoom ñoo leen gën wàcc seeni doom ca kër ga mbaa ñu fayal leen dugal leen avion yóbbu bitim réew ñu dem jàngi ngir am xam-xam yow ñu utilise la neexal la ngir nga toroxal askan wi vraiment vraiment je suis désolé mais les nervis Trou nirvi pi. Bobe, be legi mangeti e mokol, ban bat la kou mwen remplase. Me bat bi geno oyef, bi mou geno mwen mingoul, bi mou trouvi e goum. Mwen mbam. Le nirvi egal, le mbam. maa tuba bu baax bax tay tey jégalu ci kàddu gi luñ ci wax muy lu jup ngeen xamni ne ndimbal ak katanal borom bi la luñ ci wax nak muy lu safanu ngeen jégal ñuko ci xamni sunu gàtt xam-xam la ak sunu ñak mëna wax rek mo ñuko ko donc ñi ngi leen di jox rek dig daje insha allah rabbi ëllëg ci beneenub vidéo assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh